برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي تلسبكتاتر LCS لا شين سنغاليز دل سوات نيو اك ينتي سن اميشيون بو مقبلة مي ياتي فتبارك الله نيو لين زيارة لين بلو لين حق بل لين حق تي ويرو سلو تدويلة نيان سنو بروم liñ jot jaamu yàlla ci biir weer wi yépp yal nañ ko yàlla nangul bi xormati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu di euh, ngeen ko miine rek ñu ànd ak yéen ci émission bi ngeen di ko am tous les dix-neuf heures lundi ba vendredi euh, ñu ci jàng suñu xuruful hijaa yi muy lettres yi ñu jéggalu nag mbokki téléspectateurs yi yëpp ak téléspectatrices yi ci ëttu daara ji nga xam ne te yàlla dégool na euh, mujjul am fa tabaarakallaahu euh, yëpp rek ci euh, techniciens yi nekk ci lu gën a satisfaire ay téléspectateurs am fa tabaarakallaahu ci la ñu nekkoon am ñu doon installé waat moo tax ëttu daara ji tey defuñu ko ñu jégalu ko bu baax tabaarakallaahu waaye tamit euh, di ci rek nuyuwaale suñu soppee bi nga xam ne fa tabaarakallaahu mooy Serigne Pape Diagne di grand Serigne de Dakar tabaarakallaahu ñi nga xamante ni ñi ay rakkam di suñuy soppe di suñuy wëllëre sëriñ Abdourahmane Diagne tabarakallahu sëriñ Diallo Diagne euh, ñuy ay soppee di suñu wëllëre ñu dara darajaale ko bis bu mag bi nga xam ne nag moom la ñuy def fii ci buntu LCS le treize di dimanche incha allah su ko defee rek ñu ngi koy euh, jéglu bu baax ci retard bi ak yéex baa fa ñëw fa tabarakallah waaye ñu ngi ci jokkoo nañu léegi ak rakkam Abdourahmane Diagne fa tabarakallah incha allahu taala kon ñu koy nuyu bu baax moom alxaaji Pape Diagne euh, di grand sëriñ de dakaar doom alxaaji Bachiru Diagne fa tabarakallahu ñaanal way juram ba yal na yàlla kawel aljannaam bi xurmati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom mooy boroom bis bi di dimanche incha allah fii ci buntu LCS la chaîne sénégalaise ak ñi nga xam ne yépp dégg ngeen bande annonce bi ñu tudd leen ci suñu soppee suñu mag suñu sëriñ di oustaz Cheikh Lamine Sène def bande annonce bi mook suñu soppee Haaj Bachiru Caam Dogo kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax rek ngeen jàpp ci bu baax ndax yàlla def ci réussite kon le 13 la incha allah dimanche ci suba gi 11h ba 17h fii ci buntu télé bi la chaîne sénégalaise waaye tamit Moussa Koulibaly sopp na bi euh, ñu gërëmee ko yi tamit waa xel Xelcom bâche fa tabarakallahu euh, fas yéene nañoo indi ay matériel yoo xam ni yu mucc ayib la daanaka valeur un million fa tabarakallahu ci li ñu won ne ñoom lañ fas yee yéene indi fii ci buntu télé bi Euh, ngir décorer bés bi ba mu ba mu taaru loola nag waa xel Xelcom bâche jaaraama ñu gërëme leen ko fa tabaarakallah danañ ko gën a yaatal ci émission ëttu daara ji comme émission bi moom temps bi yàggul dañu war a ñëw rek pour jàng leetre yi dañu war a jàng quelques euh, minutes yi ñu ci am bu subaak jàmm ci ëttu daara ji ñu ko gën a yaatal papa incha allah kon bu ko defee euh, lettres yi di ngeen ko xamee woon ñu jàng ko waxoon nañ leen ne vingt huit leetre la vingt huit lettres yi Euh, jàngoon nañu alif ba ta jiim foofu lañ taxawe woon démb su ko defee moom mën nañ ko indiwaat parce que dafa niroog naataangoom yi muy dendal moo tax kii jiim euh, nii lañ koy bindee kii mooy jiim lettre bi nii rek dégg nga te amul maas amagul dara nii rek moom mooy jiim dégg nga day am tomb ci suuf doone tomb ci digg bi tomb ci suuf ngay wax parce que jiim euh, mën nañ koo bindee nii suñ defoon nii tey tàllal ko def tomb bi ci suuf rek su boobaa déjà jiim la lii nag day day maanaa day wone ni dafa am lu mu war a taqalool dégg nga dafa am lu mu war a taqalool ci kanam moo tax ñu ñu bind ko rek indi bopp bi euh, jubal su ko defee beneen lettre bi war a ñëw pour taqaloog moom day taqaloog moom ci kanam moo tax kon bul ne tomb bi daan nekk ci digg bi mais tomb baa ngi ci suuf ngay wax waaw parce que jiim dina ñëw mel nii par exemple tey ba doon bind jibril jiim bi nii lay mel waaw kon jiim bi individuel la amul dara lu mu taqalool moo tax boo koy bind nga def ko ni nga bindee ko nii kon bul wax tomb bi ci digg bi la nekk déedéet mais neel tomb bi ci suuf la nekk waaw comme nii su ko defee euh, moom mooy xarfu jiim bi ñu jàngoon démb dégg nga euh, ba tey ñu indiwaatal la ko fii muy jiim indiwaatal la ko fii ba tey muy jiim indiwaat ko fii muy jiim ba tey ñeent yi yëpp kon liñ jàngoon démb na mooy ñoom ay jiim lettre jiim lañu actuellement nag mënu ko wax lenn lu dul jiim parce que amagul maas waaw lenn lu dul jiim daal fi mu toll Papa mënu goko ko wax ay jim rek ngay seen fim tollu ni su ko defee nag soo maasee fatha nga ni ja dégg bi nga fatha fofu ngay soga wax ja nga mas kasra te moy ci souf ci ngay soga wax ji nga mas damma muy lonku bi nga wax ju dégg de nga wax ju nga mas sukun muy rom bi nga wax ajj waaw nga wax ajj tabarakallah kon bi mu nekké ji moy amagul won mas légui bi maske yi ñëwé nak ci ngay wax ja wax ji wax ju wax ajj denga mas nañ ko fatha mom lettre jim nga ni ja maas nañ ko kasra moom le moom jiim nga ni ji maas nañ ko damma moom lettre jiim nga ni ju maas nañ ko sukkuun moom lettre jiim nga ni ajj voilà léegi lettre xaa moo ci topp xaa légère day oyof moom du dëgër li ko waral itam dina leen ko leeralal bii tamit jàppal ni xaala dégg nga ñaara ngoog beneen a ngi nii moom tamit xaala ñett beneen a ngi nii moom tam xaala muy ñeent dégg nga de léegi lii xaala dafay oyof nag day légère xaa paa xaa du dëgër parce que amul tomb moo tax tey par exemple tey xalib xalib xaabiila parce que dëgërul tey boo doon bokkul rek boo doon bind xaa xaadim su boobaa day dëgër parce que day am tomb ci kaw mais bii nag dafa légère day oyof xa rek la simplement xa léegi nga ni xaa un lettre bi moom moo nekkaat nii xaa un xaa un xaa un léegi boo maasee ci kaw fatxa nga ni xa xa waaw xa de xa mu oyof nga maas kasra ci suuf nga ni xi waaw comme tey booy bind xaliim muy ku lewet fa basharnaahu bi xulaamin xaliim waaw xaa bii la soo commencé damma muy maska lonk bi su boobaa nga ni xu nga mask sukkuun ni ah voilà léegi xa xi xu ah day oyof xa xi xu ah mu oyof su ko defee ba tey nga indi beneen leetre moom tamit gis nga ba léegi ñoom ñett ñi ñëpp seen forme yi ñoo ko niroole gis nga ko ñoo niroo forme yi mais li leen wuutele ñoom ñett ñi mooy tomb tomb rek moo leen wuutale lettre jiim dafa am tomb ci suuf lettre xaa leger pour mu oyof moom daa vide amul tomb léegi nag bii moom day am tomb mais tomb bi su boobaa ci kaw lay nekk dégg nga muy xaa moom nag mooy dëgër xaa un walla nga ni xaa tey boo doon binde xaa dim lettre bii lañ koy bindee gis nga ko ñoom ñeent ñépp dañuy am tomb nga maas fatxa ni xa dégg nga mu dëgër xa nga maas kasra ci suuf nga ni xi ba tey yéen a ngi en direct bu leen ko fàtte mën ngeen a participer 88 628 17 27 waaw LCS daf leen ko defal en direct émission yi ñu fiy def tabaarakallahu yëpp direct la ëttu daara ji direct la. dégg nga yeete bi jàng sa euh, lettre en direct la fa tabaarakallaahu lu la ci leerul mën nga def 88 628 17 27 88 628 17 27 nga mën a bokk ci biir émission bi su ko defee boo maasee fii damma muy xu muy xu day dëgër ba tey boo maasee sukuun mascaron bi muy ax dégg nga muy ax waaw kon léegi mën nañoo tey doyloo euh, lettre yi su ko defee bii wax naa la mooy lettre jiim tey boo doon bind tey jamil par exemple lu rafet lettre bii lañ koy bindee mooy jiim waaw euh, nga maas ko fatxa nga ni ja nga maas ko kasra ci suuf nga ni ji nga maas ko damma muy lonk bi nga ni ju dégg nga ju nga mas ko sukkuun ni ajj waaw boo ko maasee sukkuun ni ajj ja ji ju aj ji tey sama juuf gi ma sant boo ko doon bind ju bii ngay bind waaye nag su boobaa day xëcc day am waaw bu ko xëcc ci kanamam loolu daañ ci ñëw lettre bu ci nekk après war na dinañ ko xëcc waaw ju ajj waaw ja ji ju ajj léegi bii xa la day oyof xa parce que amul tomb xa comme nga ni xalib waaw xalib mooy firi meew xa ñu mas ko fatxa bi nga ni xa ñu mas ko kasra muy ci suuf nga ni xi ñu mas ko damma muy lonk bi nga ni xu ñu mas ko sukkuun muy ron bi nga ni ah ah waaw mel ni ku mos lu neex ah Pape toogal waaw ax ah. xa xi xu ax ah. mi ngoog su ko defee bii moo gën a dëgër moom nag parce que dafa am tomb tomb baa ngi ci kaw ngeen bàyyi xel bu leen ko jaawale waaw nii nii ñu leen ko zoomé la nii mën ngeen mën ngeen a gaaw jël seen bic ak seen kaye gaaw recopier fa tabaarakallaahu waaw moo tax ñu zoomé leen ko nii mu leer nañ man ma feeñ ci amul solo amul benn solo su ko defee li ma ci intéressé mooy yéen ñi toog di jàng fa tabaarakallaahu ngeen mën a euh, copier lettres yi tabaarakallaahu ñu prononcé leen ko ngeen xam benn bu ci nekk nu ñu koy woowee loolu moo ëpp importance waaw su ko defee euh, xa moo dëgër nag par exemple tey lettre bii la ñuy bindee xaadim comme ni ma la ko waxee xaadim boo koy bind Euh, bii la lettre bii la waaye su boobaa du wàcc du lonku day tàlleeku nii daldi di jógaat ci kaw loolu koy xëcc muy xaa waaw loolu daañ ci ñëw kon actuellement xa ñu masko ko kasra ci suuf nga ni xi ñu masko ko damm musa nga ni xu ñu mas ko sukkuun nga ni ax moom daa gën a dëgër ax bokkul ak ax ah. bii dafa légère xa xi xu ah mu oyof bii nag day dëgër nga ni xa xi xu ax ah, voilà waaw ja ji ju ajj ja ji جو أج ح حي حو أح ح حي حو أح خ خي خو أخ خ خي خو أخ جا جي جو أج جا جي جو أج ح داي أيف حي حو أح xa xi xu ax bi muy dëgër xa xi xu ax xa xi xu ax waaw mi ngoog su ko defee fa tabaarakallaahu euh, ngeen góor góorlu rek jàpp ko noonu mm, di ngeen mën a am dara euh, altine talaata àllarba alxames aljuma ah, toujours en direct 19h ëttu daara ji tous les jours moom tamit leen di ba vendredi nekk 16h fa tabaarakallaahu su ko defee 88 628 17 27 88 628. 17 27 euh, yow mi toog am lu la leerul boo wootee ñu leer leeralal la bu fekkee gis nga tamit niñ koy doxalee am nga ci gis-gis boo wootee wax ko ñu xool loolu yëpp fa tabarakallahu euh, may nañ leen ko ci bu ngeen defee euh, numéro boobu vingt 88 628 17 27 incha allah ñu baamuwaat bala ñoo wàcc ja ji ju aj ja ji ju aj ha hi hu ah ha hi hu ah خ خي خو أخ خ خي خو أخ جا جي جو أج ح حي xu. salaamaaleykum. maaleykum waa kay soxna su baax soosu tur bi naka la ak fay wootee. Aminata Seck. ah. Aminata Seck. Aminata Seck. waaw. waaw yaa ngi ñuy woowee fan. Bargny. ñi waaw kay Seck ñu ngi lay ziyaara bu baax. waaw. bismillah. maa bëggoon a da nga bëggoon a liir. waaw. ayca bismillah waxal. Ha. déedéet bii du xaade. ja. ja waaw ja. ji. ji. ju. ju. ajj. ajj. Ha. Ha. xii. hi ku ku ah. ah xa xa bi mo gëna dëgër xa xa xi xi xu ah ax ax waaw kumba waay tabarakallahu soxna si ñu contane bu baax yow wona nga ni yaa ngi jàng fa tabarakallah ñu ngi contane bu baax baax fàttali ñu tur bi aminata sek aminata sek waaw tabaarakallaahu tabaarakallaahu Seck soxna Amina. ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax yal yàlla mottali yëpp. yal yàlla fay yiw ñu ngi nuyu waa ñii yëpp fa tabaarakallaahu. Uh, jàpp ko nii rek incha allahu noonu la altine ba aljuma ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Uh, di nga mën a bu fekkee joto ngaa jànge di nga mën a réviser waale bu fekkee jotoo woon a jàngit di nga ci mën a jànge tabaarakallaahu. waaw kontaan dañ bu baax Seck tabaarakallaahu. لأن لأن رسول الله لأن لأن لأن موسى لأن لأن لأن لأن لأن لأن لأن لأن لأن لأن لأن لأن لأن لأن direct لأن direct تبارك الله لأن تبارك الله لأن لأن لأن لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم waaleykum salaam ku baax tur bi naka la foo ñuy woowee. Aminata Diop. ah waaw waay waay ñi moom Amina yi moom tabaarakallah. <laughs> waaw kay Diop yaa ngi wootee fan. yaa ngi wootee Ouest Foire. Ouest Foire. waaw. waaw kay bismillah da ngaa bëggoon a tari. dama doon dama doon dëgg la Diop. waaw sant bu baax di la gërëm. jërëjëf Diop. waaw ah, kontaan nañu bu baax ci participation bi tabaarakallah. Ah. yal na yàlla faj aajo yëpp yal yàlla nangul nu allah. allahumma ah, la di. waaw waaw kay waaw kay <laughs> ak jàmm incha allah wallaay sant ko bu baax gërëm ko Euh, soxna Amina Diop foofa ca Ouest Foire ak soxna Aminatu Seck ca Bargny fa tabaarakallaahu ñu ngi kontaan bu baax ci seen contribution macha allah gis ngeen ko kon noonu rek la 88 628 17 27 ngeen ñëw en direct joxe seen contribution wala ngeen ñëw tari loolu lu ngeen ci def fa tabaarakallaahu baax na te dinaa fexe lijjanti nag ñu am neexal boo xam ne ku tari bu soobee yàlla di nga am neexal bu soobee yàlla. waaw ah, imaam mu xam yërey julli la yërey korité wala yooyu daa ma danaa ko fexe incha allahu ku tari nga xam ne bu fi eggee juumoo ci dara ñu wutal la yërey julli incha allah ah, kon sant ñaari amina yooyu soxna aminatu sekk barñi ak soxna aminata jóob foofa ca wesu faar asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum ku baax tur bi naka la ak foo ñuy woowee Khadijatu Gueye la maa ngi wootee Maris. ndeysaan soxna Khadija waay waay waay waay yéen tey moom yi ala daw mi na yaayu rasulullah yi ñoo njëkk ñëw soxna Seyduna Muhammad ñetteel leen. ah macha allah. Ah, soxna Khadija kontaan nañu bismillah ndeysaan. Ah, waaw Kumba waay ndeysaan waaw Kumba waay. جريجف جريجف صون جريجف يعني آمين بحرمة رسول الله آمين آمين وأيش بسم الله أها جا أها جي أها جو أها أج أها خا أها خي أها خو أها fi xu ah waaw kumba waay <laughs> li sedd li sedd na xol Jóob tabaarakallaahu xadijatu naka laati sax sant bi géy waaw kay géy géy géy mariste tabaarakallaahu géy tabaarakallaahu ñu ngi kontaan bu baax géy ñoo la kontaan nañu incha allah allah ba suba ak jàmm bu yàlla incha allah Guèye ñu sant ko bu baax gërëm ko tabaarakallahu euh, soxna soxna Amina Seck ak soxna Amina Diop ak soxna Khadija Guèye tabaarakallahu mariste 88 628 17 27 88 628 vingt 27 tabaarakallah Euh, di ngeen ñu mën a jot foofu le ngeen ñëw tari wala ngeen def seen contribution asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waa ah, kay ah waaye jigéen ñaamuñu morom de. Ah. Ah. <laughs> <laughs> ñu ngi sant yàlla soxna si. ok kontaan rek ci tur bi naka la ak foo ñuy woowee. man maa ngi tudd Fatoumata Diop Ouest Foire. ah Diop waaw. <laughs> ñu ngi révisé bu baax. ah waaw kay Diop waaw kay Diop. commencé ba léegi ñu ngi. suivre. ndeysaan dëgg la Diop jàngoon nañu sax mais dañoo xawoon a fàtte rek. dëgg la dëgg la jóob dëgg la Diop. waaw ñu ngi kontaan yal na yàlla fay. amiin bi xurmati rasulillah Diop amiin Diop. tabaarakallah léegi bu ñu amee lu rek incha allah dinañu woote. voilà incha allah rabbuna allah incha allah. jërëjëf waa kay Diop jërëjëf ñooñu waa Wasfar yëpp ndeysaan. tabaarakallahu euh, macha allah taala. Pape euh, émission bi tey moom. alaa daw mi na lool euh, Moussa sopp na bi mi ngi ñuy signalé ni li ñu cërale woon ci waxtu yu jeex na tabaarakallaahu kon nii la ba suba ak jàmm ñu sant soxna Amina sekk foofu ca bari ñi ak soxna Amina jóob tabaarakallaahu ak soxna Khady Guèye ca Mariste ak tabaarakallaahu soxna Fatima jóob ca Ouest Foire euh, ñaari Amina ak Seydatuna Khadija ak Seydatuna Fatima fa tabaarakallaahu euh, loolu am na solo su ko defee rek dig daje incha allahu taala suba ak jàmm ci waxtu ñu sant suñu cameraman ni Papa Kara ak pap Samba fa tabarakallah ak xaaj Moussa Koulibaly sopp na bi ci régie bi ki nekkoon ci waxtaan yi mooy seen daara oustaz Mor Diouf di daje incha suba ak jàmm 16h direct ëttu daara ji 19h direct yeete inshallah wassalamu wasalaamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع